yéen a ngi ànd ak ñun ci bis bu tedd bi nga xam ne moo di bis bi ñuy dundal euh, feeñ jamono euh, Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di ko dundale fii ci Touba ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul gi nga xam ne moo jàkkaarloo ak jumaa ji ci ndigal li nga xam ne Serigne Saalihu Mbakke joxoon na ko ndigal ab taalibeem di doomam doonoon Serigne Amsatu Mbakke mu Cheikh Abdoul Ahad Mbakke. waxoon ko ne ko nay gàmmoo ci kër Serigne Touba gi wuutu ko fa ndax fa la ñëpp war a gàmmoo si mu di ko dundal nag ba te jii ñu and ko ak Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xam ngeen ne léegi la Serigne Amsatou jógee fi Cheikh Mouhamadul Mountakha mu boole ko ak waa daayira Hizbut Tarqiyyah waaye mu ànd ko nag ak bokk yëpp ñu ngi toog dend ak Serigne Cheikh Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad gën ko miin Serigne Cheikh Lagan ñu ngi dend ak Serigne Abdoul Ahad waaye ñu ngi dend itam ak njabootu Serigne Touba gi ku mel ne Serigne Cheikh Kansade bokk ci njabootu Serigne Basirou Sarr jaamu Serigne Touba ñu fas yéene yëkkati ay kàddu rek ci ndigalul sëriñ Cheikh Lagane ni mu ko waxee bi ko sëriñ Amsatu waxee na ko miin nga gàmm yi ni ko sëriñ Saliou ma nga xam ne moo la tërbiya daan defee waaye miin nga ko itam nag ni ko sëriñ Touba santaane mu jox ndigal nag euh, sëriñ Abdou Lahad mu fas yéene yëkkati ay kàddu ci li nga xamante ne bii tey jii moom la ñu dundal mu di euh, feeñ jamono ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci digganteem ak sëriñ Touba nag cofeel gu gi nga xam ne am na ko ci waaye ci ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Saliou alhamdulillahi rabbil wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ji seetaan ak yi di ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu ca di leen beral suñu ziyaar ak ñaan ci ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul suñu borom yàggal ko fi lool ca ko ba mu àggale naal yi naal yëpp ba naalaat yeneen ci ànd koog moom di teg ziar bi ak nuyoo bi ci loxol sëriñ Amsatu Mbàkke mii nga xam ne mooy e, kilifa jataay bi di nuyu sëñ Cheikh Mbàkke mii di ko ziar bu baax a baax a baax nga xam ni si e, ndigalam la ñuy jëlee kàddu yi e, di leen ñaanal bu baax Mbàkke ngeen yàgg fi loolu ci weer Eh, ca suñu borom defal leen tawfiix ba yéene yi ngeen am ak liggéey yi ngeen liggéeyal seen maam yi di ko liggéeyal diine ji di ko liggéeyal islaam lépp mu mat ngeen amee ko na ko bëggee <coughs> tey nag di guddi goo xam ni mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gàmmu <coughs> baatub gàmmu baatub wolof la wala baatub waalo waalo la eh, dañuy wax ni Euh, li tax ñu tuddee ko gàmmu baatu cosaan la boo xam ni amoon na fi waaye dañ daa daje di xawaaree ka naan sàngara ka defi feetu feetu cosaan la goo xam ni daal yàgg na ci tur yi mooy gàmmu ca waalo dañuy nettali nag ne Alaaji Maalik ba mu ñëwee euh, fekk fa lu mel noonu moo leen woo nag ci ne nañ gàmm waaye ci façon baneen mooy mbég feetu ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fekk jamono yonent bi kon baatu gàmm foofu la jógee <coughs> waaye dundal gi moom yàgg na fi lool eh, xam nañ ñi sëriñ bi ba mu ko tàmbalee yàgg na lool mooy sëriñ bu mag bi Seexul Xadiim eh, naka noonu timit eh, ñi nga xam ni ñoo fekkee euh, jamonoy sëriñ bi wax nañ ni ak fonk gàmmoom foo ko mos takk weesu na ko ndax moo daa taxawul boppam gàmm moo daa bernde yi moo ko daa seddale boppam moo daa séddale café yi séddale meew yeeg di ko defar ci loxol boppam euh, ca loolu da ko yàgg euh, yaxal yàgg ko feeñal ci ay mbindam ak ci ay ay xasidaam eh, ndax yonent bi sallam moom ki koy màggal mooy ki ko sopp rek maanaam eh, gàmmu xeet benn la ci façon yi ñuy yi ñuy ñuy fësalee sopp yonent bi sallallahu alayhi ci sopp yonent bi sallallahu ci jullit bu nekk eh, dafa wax ne gëmu kenn du mat dare ba nga xamee ni eh, dala gënal sa bopp gënal la say bokk gënal mboolem mbooleem nit ñi loolu kon ci àq yi nga xam ne moom la ñu àq amal yonent bi sa la bokk moo sëriñ bi moom dala wax ne mahat mahabatiyal muxtaar sayidal wara eh, sayidina bul magaani wa ahli wala eh, wala nam ko waxe maanaam sopp gum sopp yonent bi sa sallam moo far ci ab xolam wala sopp laneen du du ak njaboot du alal du du du du du laneen loolu euh, feeñ na ci ay mbindam ba tàyyi kon bu fekkee euh, wàccuwaay boobu la joxoon gàmmu di ko dundal ba nga xam dañuy wax ne sax di mu weeru gàmmu masaa teru euh, day day feeñ ci moom ñi nga xam ni xamoon nañ ko bu ñu amee lu ñu bëgg sàkku ci moom dañuy dañuy dañuy profité ci loolu ndax euh, tabe gi day day day day lépp loo xam daal day day bëgg mbégte mi day yaatu ba nga xam ni euh, nit ñi dañ dañ daa dàkk loolu ngir ngir am dara ci luñ soxla ci moom ci ci ci weeru Gàmbi bu teroo kon loolu mooy euh, façon bi nga xam ne sëriñ bi daana ko gàmmoo ak njabootam tamit noonu bu ñëwee ba ci Serigne Saalix moom nga xam ni moom siiwoon na lool ci ci ci fonk gàmm ndax Serigne Saalix moom déclaration màggal da ci daa boole gàmm nañ waajal gàmm bi eh, dégg nañ ba tàyyi tamit ci ay ay kaset yoo xam ne ci làmmiñam mu ne guddi gàmm eh, ki ko yamalee ak guddi yi ci des du yom ak mukk ki nga xam ni amul ko guddi yi ci des waaw eh, Serigne Hamza tamit tamit Euh, firnde la ci fonk suñu saali saaliwu fonk gàmmu ndax moo ko digal mu di ko dundal fii ci kër gi euh, ci ak nekkam euh, mu continuer di ko def ba mu fi nekkatut mu continuer digal lool nga xam ne bu ak léegi at yu bare bare bare ëpp na fukki at ndax suñu saali mu fi jógee léegi rek fukki at ak ñett la fukki ñeent ci ci ak nekkam la ko tàmbali kon loolu day tegtale day tegtale fonk goo xam ni fonk nañ ko fonk nañ ko gàmm gi euh, sëriñ bi tamit euh, moom it euh, ak ni ko ñëpp xamee ci pasteefam ak bëgg sëñ Tuubaam ak ak ak doxee mu doxee doxee ci ndigal moom it mu jàpp bés bii ak lu ko ci mën a fekk nag ci ndax taxawal bés yu mel nii bari nay coono lool rawatina tey ñëpp xam nañ Euh, bu doon lu yomba lu yomba gàntal nañ gàntal ndax euh, léeg-léeg am ay gàllankoor yoo xam day am waaye teewut euh, li muy yaram bi surante lépp teewut mu mu mu mu pasteefam ak ak ak taxawaayam tax na dara jëralu ko mu dundal ko dara mënut a tee mu dundal ko na nga xam noonu la ko daa dundalee. kon sëñ Fallou gàmmu gaa ngi noonu niñ koy dundalee nag. Euh, ci ay façon yu bëree bëri bëri la ndax bisub bu ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi la bis bu ñuy bëggee yonent bi euh, waaye bis buñ koy ñaanalee timit la ndax euh, borom moo woon yaa ayyuha llaziina aamanu sallu inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha llaziina aamanu sallu kon guddi gu ñuy defee ay salaatu ala la guddi gu def ay laax la guddi gu ñuy alxuraan la waaye guddi la goo xam ne tamit eh, dañ ci tabe ci laneen tabe ci laneen mooy nga ki nga xam ni moo yor kurusam wala moo yor eh, jublu penku di def ay jaamu yàllaam jaamu yàlla yooyu amaana mën na bañ a eh, rogaatal jëm ci ñaneen waaye bu ci boolee nag di fàttalante ak jullit ñi dund yonente bi sallallahu ak euh, euh, nekk gi mu nekk euh, uswa wala aswa wax dëgg yàlla loolu mooy njëriñ li nga xam ñoom la mooy jóge ci ci nit ñi di dem ci yeneen ci loolu sëriñ bi at yële am yàgg na bam bam ba mu joxee ndigal loolu na léegi gàmm gi nañ ci def ay waxtaan di ci fàttalante dundu yonent bi ndax yonent bi mooy ko nga xam ni comme ni ko sëñ bi waxee wa akmalul wara xalxan wa xulxan wa haara yonent bi sallallahu alayhi mooy koo xam ni eh, fi mu wuutee ak yonent yu bare baree bari moom foo ko lamb fekk ko fa boo bëggee eh, jël eh, exemple ci borom kër yonent bi sallallahu nekkoon na borom kër boo bëggee jël exemple ci koo xam ni chef de guerre la woon yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon na foofu bu bëggee jël exemple ci mbooleem taxawaay yi nga xam ni nit am na taxawaay yu mel noonu nit mën na ko taxawee boo demee fekk fa ci loolu la wuute ak yonent yu bare bari kon muy ay bind yoo xam ni mënees na koo jariñoo bu baax a baax a baax ci dundu yont bi ak ak tabeem ak laabiram naka la doon la la la la daa diriger naka la doon lijjante jullit ñi naka la doon organiser yooyu yëpp ay ay mbir la yoo xam ni yuñ mën a jariñoo mooy beneen facette bu bees boo xam ni eh, yokk nañ ko ci gàmb gi yoo xam ni bokkut ak eh, li nga xam ni mooy ñaan yi ñaanu gi demee noonu kon Sëñ Fallu foofu lu lu lu lu yaatu la loo xam ni yaa eh, xam naa ni dañ continuer guddi gi gën cee continuer ci ay ay yu meloon incha allah ak jërëjëf